photo photo la waaye photo bu leer moo tax ñuy wax sen label de shooting bi di social shopping shooting mo len di gungé ci ñaari yeuf waw ñaari yeuf nee ma benn seeni ay cérémonie mo xam baptême anniversaire mariage dañ leen di you ay photo yu and ak qualité yu doy war yamul fofu dañ leen di defar ay vidéo yu am tias and ak catu tias bu ko defee nga dégg dal ci mën ci def ndax xam na ngeen bëgg té ñun ñi wa social shopping shooting dañ leen di defaral li gën hee waa neexul romb na neex benen bi gëna neex nak mooy yow mi nga xamanteni top model nga nga wara woné sa ay produit dañu lay defaral ay fond en nature yo doy waar fond vert fond rouge lepp la nga xamanteni day taral sa ay photo pour sa produit gëna mëna jar ñu wowe ñu la ay photo yu am solo daal di doy waar yamul fofu la ci gëna neex mooy yow mi nga xamanteni da nga bëgg sañsé daal di bëggal sa ay soppé bo ñu bo ñu wowe ñu ñëw ba sa biir kër defaral la shooting yu amul fenn wala nga ñëw fi suñu studio ak suñu ay fond yu am solo ñu defaral

hôtel bi dàq ci hôtel ci àdduna xale baa ngi nii ah kii la aywa ba la way la ni yow barki kon sàngara sàngar li mu doon sàngar lii la ñaa luñ la waxal yow xam nga nga yow luñ la waxal yow xam nga yow luñ la waxal yow dàq ci hôtel ci àdduna xale baa ngi nii ah lii la ba jàmm la way la ni yow. barki alxuraan kon Sankara. Sankara li mu doon. Sankara lii lan la. ñaa ñaa luñ la waxal yow. xam nga nga lu leen dàpp ci oto ci àdduna xale baa ngi nii ah kii la aywa lii ba jàmm la.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 immobilier bu ko faits, Yen, ngeen woote 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping immobilier jay kër nexna pas, ci